sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmaani irahim alhamdulilahi rabilalamina wasalaatu wasalaamu ala almabuuthi rahmatan lilalamina sayidina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ixwat alimaani walislaami walihsaan walirada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki am média groupe nuuru daaru yi nii ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonente boobu sallallahu alayhi wa di leen ziyaara di leen dokkeel di leen baal àq di ñaan ngeen baal ñàq di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu suñu rëcc rëcc di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy jël boobu rek ak ziar bi di ko teg ci loxol kilifa gi ak cheikh abdul ahad mbakke di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu ko ci suñu kanam ba lim yéenee liggéeyal maam ñu ànd ko moom liggéeyal ko bi jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa kon tey xam naa laaj ñu fi jot am rek laaj ñu fi jëkk am mooy jóge ji soxna ami fay juuf moom taqulu innaha faatatha salawatun li maradin hal taqdiha soxna si day laaj ne ay julli yu bare bari da ko raw ngir moom dafa feebaran sababa feebar foofu boobu daal moo tax julli yooyu raw ko muy laaj nag ndax bi feebaree da jullee tut julli yooyu da koy fay walla déet waaw dañ naan yajibu ala almukallafi xadaau ma faatahu min alsalawaati walaw shakkan nañ ne mukallaf moom lu ko raw ci julli rek maanaam da ko war a fay julli yooyu da war a fay ndax ne ne mukallaf moom lu ko raw ci julli rek maanaam loola da ko daal di war a gaaw fay ko moo xam donte da ngaa dem bay sikki sàkk sax ndax naan julli sàngam julli naa ko wala déet na julli googu danga ko war a fay te rawatina li wax nii ne dafa feebaran moo tax euh, ay julli raw ko xam na loolu moom doomu aadama moo xaw a doy war rek maam ki tuuti ci wàllu googu waaye feebar sax nag bokkut ci yi nga xam ne day tax maanaam nit ki war julli ndax julli moom feebaru ngaa ngi dama ko ñëw rek maanaam dañ la koy topp dañ naan soo mënee taxaw nga taxaw julli soo ko mënut nga toog soo mënta toog nga tëdd ak euh, wet goo mën a tëdd rek nga tëdd ko te julli julli dafa dem ba àgg ci liyaar kon lu feebar metti métti daal bu dee feebar la rek moom euh, julli moom du tax mu nga mu war laa raw kon julli yooyu nga xam ne da ko raw ci jamono ji da moo xam ne dafa feebar dañ koy da koy fay te ñu koy xamal ne ko moom feebar daal maanaam du tere julli daal bu feebaratee ak nu mën a dem rek na góorgóorlu ba jéem a julli yeneen laaj yi ci topp Baye Salih Ndiaye jëwriñu alxuraan moo ko yónnee Baye Sall ñoo lay ziar bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla na ñaani amin ñaani yàlla yàlla nangu barkab Seex Xaadim waaw Baye Sall dafay laaj hal yaqtasu al insaanu min al jinni yowmal xiyaamati laa jëm dafay laaj ne waaw ndax jinne yi nga xam ne xañ na dañuy tooñ doomu aadama yi ci xeeti tooñ yi nga xam ne dañ leen koy tooñ ndax euh, doomu aadama dina fee feyu tooñ koo ko jinne di tooñ bu bés penc ba maanaam daal xam naa day bëgg a laaj ndax ab fayantoo maanaam dina am ci diggante jinne ak doomu aadama waaw dañ ko naan yaqaaw xisaasu baynahuma waaw maanaam jinne ak nit su bés been ji ba euh, lu ñu seqan ci ay xàq rek maanaam dinañ ko toppante ba mu leer maanaam dinañ ko lijjanti lu ji mën di am te nag na ne wa aglabu ma yakunul ada minal jinni lil insi ne te booy xool lonaange yi ëpp nag maanaam jalgati nga xam ne gi mooy nekk seen diggante la ci ëpp maanaam nee na jinnee koy def maanaam nee na jinne moo ëpp lu muy tooñ doomu aadama ndax nee na li àndal jinna yaroonal insaana na yashuruuna yaroonal insa wa yashuruuna bi ndax nee na jinne day gis doomu aadama yi nit ñi te di leen yëg waaye nit ñi moom du ñu mën a gis jinne mënuñoo yëgit fu mu nekk waaye jinne moom day gis nit di yëg ne mi ngi ci béréb sàngam wala insu laa yaraw na jinna wala yashuruna bihim te ne bu dee nit ñi la nit ñi duñu gis jinne duñu yëg fan lañu toll wa lizalika yakunu alxisaasu baynahum yowma alxiyaamati ka saairil maxluqaat nee na loolu tax bu bés benn jibaa tooñ ko nga xam ne gii mooy gën a ëpp ci junne yi jinne yi ñu di ko tooñ doomu aadama yi su boobaa loolu dañ taxawul seen diggante atte leen ba la ca war ci ay àq maanaam doomu aadama bi jël ko waaw waaw loolu la beneen laajam bi tamit muy laaj lu jëm ci wàllu xóorul ay yi nga xam ne dañoo nekk ci àjjana ak euh, jigéeni àdduna yi nga xam ne ay jullit lañu dafay laaj ne ayyuhuma afdalu fil jannati al xóorul ayn aw nisaa dunya ba tey bàyyi saal mi ngi laaj ne jigéen ñi nga xam ne ñuy xóorul lañ lañu tudd nekk ci àjjana mooy seen ab dëkk ak jigéen ñi nga xam ne ñi dañoo nekk ci àdduna eh, ñan ñoo ci gën maanaam ñan ñoo ci gën a rafet ñan la ci seeni borom kër yi gën a bëgg ak it eh, bëgg nit kiy bëgg soxna yooyu ndax lu ci am ak jeng boo xam ne gi da koy jeng jëm ci kenn ci ñoom dañ ko naan warada fi baadil ahadith tafdilul maratil muminati tafdilul maratil muminati fil jannati ala xurin ayn nee na am na yenn xaddis yoo xam ne wax na ne jullit ñi nga xam ne ñi jigéen ñi nga xam ne ñi ñoo nekk ci àdduna te doon ay jullit nga xam ne dañuy dem àjjana nee na ñooy gën jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo leen tuddee alxuurayn ñoo leen di gën a rafet loolu daal xam na yenn xaddis yoo xam ne yii wax nañ ko ne ñoom ñooy gën a rafet ñoom la ñu gën a bëgg su ko defee xadis bi mu wax ni it comme ne ay xadis boobu am na ci ñenn ci borom xam ñoo xam ne dañ ne bi daal dafa xaw a feebal waaye nag wa baadu ahlil ilmi yara am na nisaa dunia fil jannati xayrun min al wa atyabu wa arxabu zawjiha xatta fi sifaati zahirati waaye ñeneen borom am na ci borom xam-xam yi daal ñoo xam ne gis nañ ne moom jigéen ñi adduna yii bu ñu doonee ay di jaamu yàlla ba yàlla yóbbu leen àjjana ne leen ñooy gën xurul ayn yooyee ñoo di gën a rafet te di gën a teey te it ñoom la seeni borom kër di gën a bëgg ñoom jigéen ñi adduna yii ba ci lépp yëpp melokaan yoo xam ne yu feeñ la sax it maanaam ne na jigéen àdduna yi ñoo leen koy eh, gënle te loolu boo koy xool comme soxna yi nekk àdduna doon ay jullit nekkan di jaamu yàlla te ñeemam yàlla leen sàkk rek binde leen noona ñoom xooru la iniya nga xam ne ñoom dañoo xëy rek ne ca xewal nga dëkk ja eh, du ñu mën a bokk ak soxna yi nga xam ne dañoo nekk fii ci àdduna sonn fi lool gëmën yàlla doon ko jaamu su leen yàlla gërëmee ba tàbbale naa dina da leen di former forme bu baax bu neex bu rafet boo xam ne ñooy gën a rafet ñooñee ñoo leen di gën a taaru ñoo leen di gën a sell beneen laaj bi ci topp Serigne Aliou Badara Ndiaye moo ko fi laaj muy jëm ci wàllu al israa wal mi'raj muy tukki ba am boobu nga xam ne bii Seydina Muhammad da ko defal jóge ko Màkka dem Baytul Muqaddas jóge baytul muqaddas dem ci asamaan si gën a kawe tukki bu tukki bu sell boobu daal lay laaj lay wax ñu luñ ci mën a leeral ci wàllu googu waaw xam naa tukki googu moom dafa yaato yaatu ba la ca xew lépp ci ay mbir dafa bari lool kon moom jamono moom lu mu fa fu nu demee ci al isra wal miraaj rek dañuy seet yenn ti tomb yoo xam ne dañ ko ci wax waaye daanaka la ca ne lépp du neexa dajale du neex def ci benn waxtaan itam kon lu luñ ci wax rek nañu xam ne loolu lenn la ci xew-xew bu am solo boobu nga xam ne bi moo amoon kon bu ñuy wax al israa te mooy jóge makka dem baytul muqaddas defe naa foofu la gën a laaj sax muy al israa bi waaw waaye dañ koy boole ak al mi'raaj al israa moo jóge Seydina Muhammad jóge makka dem baytul muqaddas waaye al mi'raaj mooy bi mu jógee baytul muqaddas daal dem ci kaw asamaan si kon dañ ko naan al israa'u innahu intixaalu nabi sallallahu alayhi wa sallam maa jibril alayhi salaam laylan min al masjid al haram ila fi baytil muqaddas ala daabatil buraq al mooy jóge gi Seydina Muhammad jóge eh, makka makkatul mukarrama ànd ak sayyidina jibril alayhi salaam dem euh, baytul muqaddas ci jàkka ji nekk foofu ci benn warukaay boo xam ne bii alburaq lañu koy wax maanaam euh, bi ko sayyidina jibril di jël si euh, warukaay bu ñu wax alburaq moom la sayyidina jibril àndaale mu war ci mook sayyidina muhammad ñu daal dem baytul muqaddas waxat sabata وقوع هذه الحادثة في القرآن والسنة وشهادة الصحابة وهي من إكرام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم nee na tukki bii nga xam ne ci guddi googu la am maanaam muy xew-xew boobu lu sax ci alquran la waaye tamit sunna saxal na ko muy Seydina Muhammad saxal na ko waaye seedeeb euh, saxaaba yi tam saxal na ko te buñ ko doon tënk rek mooy. muy tukki boobu buñ ko doon tënk lépp ay teraanga yoo xam ne yàlla da ko defal seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kaana li rihlatil israa wal miraaj yi al adidu min al asbaabi minha ne tukki ko nga xam ne mooy dem baytal muqaddas jóge fa dem ci kaw asamaan am na ay sabab yu bare bare yoo xam ne dañ ciy wax yi nga xam ne moom lañ bëgg a wax bokk na ca sabab ya taxfiifun li alaamihi wa ahzaanihi sallallahu alayhi wa sallam bi sababil aza allazi talaqaahu min xawmihi nee na bokk na ci sababi euh, tukki googu ne yàlla da ko doon oyofalal mititam yi ak njàqare nga xam ne yii ak loraange yi nga xam ne yii Seydina Muhammad maanaam dalan na ko tamu jóge woon ci noonam yooyu nga xam ne yii ñoo nekkan Makka dañoom daal loolu bokk na ca la nga xam ne tax na yàlla yëkkati ko jaar na ko bëri na koo xat di ko yóbbu ci asamaan yi bokk na ci itam eh, i'laa'un li sha'ni nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ikraamun lahu bokk na ca sabab yi tamit maanaam yàlla dafa bëgg na yëkkati eh, mbiram Seydina Muhammad ba àdduna gépp xam ne kii mooy kilifa yi nga xam ne moom la yàlla tànn jiital ko ci mbindeef yëpp ba keroo àdduna yi tukki waaye tamit da ko cee bëgg a defal ay taraanga yoo xam ne yi ba àdduna yi jeex ku nekk dina xam ne taraanga yooyu moom kooku dong la ko yàlla defal muy Seydina Muhammad sallallahu wa sallam bokk na ci itam eh, al inaasu wa tasliyatu lahu sallallahu wa sallam wa taarifun lahu min manzilatihi wa qadrihi inda allahi taala bokk na ci itam sababi tukki googu muy uh, ak ko ci yàlla defal ak ak feex koo xam ne gi defal na ko ko ak it nungul ko moom yàlla dara ji nga xam ne ji moom la ko defal ak dayo bi nga xam ne bi moom la am sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom fa yàlla bokk na ca sabab yi itam taawidun lahu sallallahu alayhi min ahli taif wa takzibihim lahu nee itam seen Muhammad xam nga mas naa tukki dem dëkk bu ñuy def bu ñuy wax taif waaye ba mu fa demee dañ ko doon yuuxoo dañ ko doon yuuxoo di ko sànni ay xeer boole ko seen nit ñu manqué nit ñu def ña ñu di ko ceebeeb ci mbedd yi mu mbitti ko lool ci liñ ko def ci dëkk bu ñuy wax taif ne kon loola bokk na ci di tax yàlla defal ko tukki boobu muy al isra wal muy dem googu mu demoon Taayif te am fa naqar woowee yàlla remplacer ko ko yàlla wecceel ko ko euh, tukki gu gën googa gu ko dàq gu gën a dalal am xelam ak fàtteloo ko weddi goo nga xam ne gi ñooñu dañ ko ko weddi woon ak ñooñu ko doon saboote boole ko defee ak seen xaj ya bokk na ca yàlla mun loxo sallallahu alayhi wa sallam bi ayatillahi alazimati eh, lima fi zalika min alqudrati ala muwajahati masaa'ibi daawati allati taatariduhu wa min almushahad allati araha alanbiya walmursalina wa mushahadati aljannati wannaari wa gayri zalika bokk na ci saw bés tukki bu bu sell boobu muy yàlla da ko cee bëgg a xamalaale kéemaane bi nga xam ne yu màgg màgg la yu rëy rëy la mu woon ko ci lu baree baree bare ndax ne ne loolu euh, day wane ne moom euh, ku am daraja fa yàlla la te it loolu bu ko waree muy kéemaan yooyu euh, dina mën a jàkkaarloog coono yi nga xam ne ni moom la nar a daj ci woote yi nga xam ne gi moom lay woo nit ñi ngir ñu doon du dooni ay jullit ngir ñu jaamu yàlla nee dina mën a euh, gàddu coono yooyu mën ko muñ te da ko ci woon ci ay seere yoo xam ne yii wonoon na ko yonente tey ak ñi nga xam ne ñi ñoo ko fi jiitu woon waaye tamit ci tukki boobu mu woon ko ci àjjana muy kër ak teraanga googee ak la nekk ci teraanga mu wër fépp waaye tamit won ko ca sawra muy dëkkëb torox tànge boobu ñeel yéefari ñeel ñi dul jaamu yàlla ak la ca nekk ci ay mbugal ak fitna ak i tiis yépp mu woon ko ko ci guddi googu te loolu lépp doon ko bégloo rek ak euh, di dëgëral am xelam ba su dellusee fii ci àdduna daanaka euh, lenn dootu ko fi mën a jaaxal ci wàll goo xam ne gi lay mën a gàllankoor woote goo nga xam ne gii moom lay woote waaw kon nag euh, tukki bu sell boobu bu barkeel boobu kañ la doonoon dañu ne kanat hazihi rihlatu al mubarakatu fi laylati saabii wal ashrina min shahri rajabin ne tukki boobu mu deman baytul muqaddas jóge fa dem ci asamaan si mu ngi nekkan ci guddik euh, rajab ndey koor ci ñaar fukki fan ya ak juróom-ñaar weer wi ñuy wax rajab te mooy ndeyu koor moom la tombe ba weeroow dee ba amee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar loolet mooy jaa jibril alayhi salaam bil buraaq dane seydina jibril moo andi waaw warukaay boobu ñuy wax al buraaq te buraaq ne ne nii la mel wahiya daabatun asaxaru min al farasi wa akbaru min al ximaar ne ne al moo gën tuuti mbaam moo gën a tuuti aw fas waaye moo ëpp mbaam alburaax ne ne moo gën a tuuti aw fas waaye moo ëpp mbaam tadaaw xaafiraha inda muntaha tarafiha ne alburaax moomu nag gaaw na gaawaay boo xam ne bii maanaam bu xoolee bëtam yooyu fu bët yem rek maanaam tànk ya ñu nga fa maanaam gaawaay bu gaaw gaaw bu bu yéeme bu doy waar la moom alburax gaaw nga xam ne dafa gaaw ba maanaam fu bëtamit toll rek ci gis maanaam euh, tàngam yama nga fa maanaam dafay daal di àgg ne ne raa sallallahu alayhi wa sallam aadama wa rahaba bihi wa arahu arwaaha shuhadaa yi yaminihi wa arwaaha al asfiyaa yasaarihi ne ne ci tukki boobu Seydina Muhammad ci guddi googu gis na ci seyduna adama seyduna adama teeru ko lool tatagal ko teral ko waaye itam ci guddi googu yàlla won na seyduna muhammad ruuy ñi nga xam ne ñi dañuy texe euh, mu féete ak ndeyjooram won ko it ruuy ñi nga xam ne ñi dañoo taxee di mu nekk ci wetu càmmeñam wa yaxya wa isa fi sama ithaniyati nee dem ci biir guddi googu seydina muhammad gis na yaxya ak isa ci asamaanu ñaareel bi ba yuusufa fi samaa thalithati gis na fa it na ibrahim seydina yuusufa ci guddi kooku googu seydina yuusuf nekk ci asamaanu ñetteel bi wa idrisa fi raabiati gis na fi it yonente boobu ñu wax idris ci asamaanu ñeenteel bi wa haaruna fil xaamisati seyduna haaruna itam seyduna muhammad gis na ko ci gudd googu bi demee ba ci asamaanu juróomeel bi wa muusa fi saadisati gis na it seyduna ci guddi googu bi ci asamaanu juróom benneel bi wa ibrahima fi saabiati bi demee nag ba ci asamaanu juróom ñaare bi foofu la fekk seyduna ibrahim alayhi summa saada ila sidratil muntaha wal baytil maamur nee nag bi mu demee moom Seydina Muhammad ànd ak ci kaw buraaq ba romb Seydina Ibrahim la daal di yéeg dem ci sidratul muntaha sidratul muntaha nag mooy béréb ba nga xam ne mi ne nañu foofa la yemukaay mbindeef eh, yem eh, ñu bari sax maanaam mënuñu fa àgg te eh, ne nañ tamit ci foofu itam am na benn néeg bu ñuy wax foofu al baytul maamuur nga xam ne néeg boobu Seydina Muhammad sallallahu alayhi ne ne am na néeg bu nekk ci kaw asamaan boo xam ne bii bés bu nekk juróom-ñaar fukki junniy malaaka dinañ ñëw ziyaare ko te dootu dootuñu bu nekk moom al baytul maamuur fukki junniy malaaka dinañ ñëw ziyaare foofu yi te duñ ci dellusi si bu subaa yeneen juróom-ñaar fukki junni ñooy ñëw ziyaare waat néeg boobu ci ay malaaka suma saada fawqa saabiati seydna ibra seydna muhammad na ne daa di weesu seydna ibrahim daa yéeg ci asamaanu juróom-ñaari maanaam da ko bëtt jàll ci kaw wa kallamallahu taala wa kallamallahu taala foofee mu wax fa yàlla fa farada xamsiina salaatan wa baqiya nabiyu a yuraajewu xataa xam xamsan mu ne foofee nag foofu yàlla doon waxee ak Seydina Muhammad fa la yàlla faratale juróom fukki julli waaye juróom fukki julli yooyu di ko yàlla farataale Seydina Muhammad dafa xam ne loolu dina diis ci diis ci xeet wi muy dellu ci yàlla di ko wàññiloo mu koy wàññi par juróom ba julli yi des juróomi julli loolu tax ñu ne julli juróom yi ku ci góorgóorlu di ko julli maanaam juróomi julli nga julli waaye yoolab juróom fukki julli moom lañu lay fay waaw kon gis nga julli ni mu amee solo wa urida alayhi al labanu wal xamaru faxtaaral labana neneen foofee itam jox nañ ko fa ñaari kaas yoo xam ne benn bi eh, am soow la bi ci des sàngara la Seydina Muhammad daal di jël kaas bi nga xam ne bii moo def soow mi fa xiila lahu asaabal fitrata bi mu jëlee kaasab soow boobu ñu ne ko dégg kàddu koy yow de jël nga li nga xam ne lii mooy njub gi mooy njub ak sa xeet bi nga xam dañ lay topp boo delloo adduna wara a anhaaral jannati ne na itam gis na foofee moom Seydina Muhammad dex yi nga xam ne moom la yàlla def ca àjjana wa xaasina gis na itam bëkk néega sawara ba te mooy Malik maanaam malaaka moomu tudd Malik yàlla won na ko fa keroog won na ko Seydina Muhammad ak na mu nekk ca buntab sawara boobee guddi googu it Seydina Muhammad gis na ca akalata riba wa akalata amwaalil yataama zulman guddi googu itam won nañ ci Seydina Muhammad lekkati riba yi maanaam mbugal ga nga xam ne gi moom lañ leen di mbugal waaye itam ñi nga xam ne dañuy lekk alali jirim itam ci ci kaw ak tooñ guddi googu nañ ci seen Muhammad ñay lekk alali jirim yi euh, mbugal ga nga xam ne gii ñu ngi leen koy mbugal su ko defee ci tënk rek loolu lenn la ci loo xam ne lii moo aju ci tukki bu barkeel boobu euh, ñu tënk ko lool su ko defee lenn ci loo xam ne lii mën lañ ko caa jariñoo mooy bayaanu ahamiyati salaat xaytu furidat fi sama dinañ ci mën a am ñaari tomb yu ñu mën a jëriñoo muy julli maanaam am solo gi mu am solo ngir euh, moom ñu ngi ko farataale ca kaw asamaan yeneen jaamu yàlla yi ci des yëpp yàlla da doon yónnee jibril mu ñëw di ko wax Seydina Muhammad ñu di ko farataale fii ci kaw suuf waaye julli moom am na solo ak rëy rëy goo xam ne bii am ab wàccuwaay boo xam ne bii bi ko yàlla naree farataal daa woo si noo xamet ca asamaan ya gën a kowe daje ak moom farataal ci moom julli ak xeetam yi kon loolu itam mu nekk lenn ci luñ mën a jëriñoo ci solos tukki goo nga xam ne gi tukki gi am na ko bokk na ci itam ab dalalatu ala ahamiyatil masjidil haram wal masjidil aqsa bokk na ci itam ñaari béréb yi ñu mën na jàpp ne mooy béréb yi gën a sell ci kaw suuf te mooy jàkka ji nekk Makka ak jàkka ji nga xam ne ji mooy masjidul aqsa dafa am solo lool ci kaw suuf war rabtu bay dofuma tayit dañ ci war a jël ñoom jàpp leen ñoom ñaar gëm leen xam ne ay bërëb la yoo xam ne yàlla leen taxawal tànnal ko boppam wax yaamuhuma ala ala tawxidi wal ixlaas yi tey nu gëm ne ñaari béréb yooyu dafa taxaw dañ leen a tabax ci ak wéetal yàlla ak sellal jaamu yàlla gi te yàlla tax kon li daal lan la ci ëpp tënk ci tukki bu boobu yàlla na la defal tax yo di jël seena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam اللهم صل على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

sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey